boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ngir gën a jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone u qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal bi di Crosscall ak ay téléphone jetable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance ba noppi te leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seen appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 842 61 38 33 842 61 38 wala nga dugg ci suñu site www.digitalstore.sn yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie général ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi xaq ñépp tey balu yàlla nanu di dénk sunu bopp nu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah mooy di jëfe sunu kem kàttan digali sunu borom yi te wan gannaaw ba faw ay tereem tey baal xel bis boo xam ne bu agsee jur nit walla ñu jural la ko am na njariñ naam waaye kenn du fa may kenn dara kenn ku ci nekk da ngay toppante ka nga koy toppanteel ba mu jeex tàkk léeg-léeg sax nit ñëw ne kii mooy sama bàyyi mu ne ko déedéet loolu alquran la yawma yafiru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli imriin minhum yawma idin sha'nun yughni mu ne ci alquran nag yàlla digg te gisagu leen ko moo gën a wóor fuuf lim leen dig ngeen teg seen bët ndax lim leen teg lim leen digg ngeen teg seen bët daf leen ko wan fa seenu dégg di toll fa seenub gis mën a yàmm waaye la fa moom moo ëpp fuuf rekk buñ topp adduna ak li ci biiram ba mu dox suñu digganteeg topp suñu borom waaye yàlla nañu yàlla musal ci topp lu tor ne tarfata ayin xef a xippi alxaru te mooy seytaane di fàttali suñu bopp ne saa bu nu waree génn ci jaamu yàlla gu màgg googu di koor geneen jaamu yàlla day fëggaat suñu bunt muy aj màkka xaj nag li muy tekk mooy jublu màkka ci sa ci sa sago bu sàttee dajee fas yéene jëfe ndigali suñu borom yooyu mu fay digle ñi seenom xel nekk ci dem yàlla na leen yàlla yóbbu te delloo si leen mu mel na nag bi ko suma borom di santaane daf ne yàlla sañ naa sant nit ñi bi mu leen moomee ba noppi dafa daf leen a sañ sant bu weeru koor jeexee ñu tàmbalee waajal ak ci ku ko man wenn yoon ci ak dundam man nga nag bari na lim waaye la ci gën a yomba jàpp koo xam ne mën naa am paas bu ko yóbbu delloosi ko te bu dee réew mii li ci ëpp fafal naaw lañuy ñuy dugg kon ku mën a am paasu fafal naaw dem ak dikk ak yami àndal am wérug yaram ña koy seet seet ko ba ne ko mën ngaa dem bala yóbbu kenn na dem ba noppi ndax par kenn la ko yàlla gàll ku ko man la yàlla gàll niwuñ na yóbbu ndeyam ak bàyyam ba noppi door a dem am na ñoo xam ne bu ñu waajee dañ na leen gone du dem màkk xanaa kon gone du lekk du naam tontu la ah gone du sëñ te jàpp dem ca jàkka ja julli génnaat axakay ah xanaa kon gone sëñ te woo waaye réew mi gaafal nañ ko ba nga xam ne day yóbbu ndeyam ak bàyyam am na si ñoo xam ne sax mënuñoo dem du seen wér du seenam xel daanaka mu sotti am na ñoo xam ne dañ fay tumaranke ji dong waaye am na si ñooy ñoo ko bëggee noona bokk na ci li nit ñi ñaanalante naan la yàlla na diw màgg ba yóbbu la màkk waaye dañoo war a ñaan ne yàlla na diw dem màkk ba am lu mu demee màkk ba mën na yóbbu mag xaj màkk moomu nag benn la ci ponk lislaam yu mag yi di juróom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañu ko jëf yi ci gën mu ne ba ca gën bala moo tàmbalee jëf mooy mu gëm yàlla gëm na yonent bi ndawama te du waxe bakkanam lu mu wax moo ko wax ñu ne ko ah ndax loolu am na ba ca topp bu ko ñaareel mu ne ah kay mooy al jihaadu fi sabilillah mooy daan sa bakkan ba nangoo jaamu yàlla tënku ci ponk yépp te boo koy def mu neex ci sa say cër sab xol nangu ko ñu ne ko xanaa foofu la lu yem moom mu ne ah kay aj goo xam ne ka koy ajji da koo waajal na mu ko war a waajal def ko ko nañ ko sante lañ ko cay fay amul moroom ndax ci aj dong la am ci la doon waxe ne li aj di baax baax ku ko defee nag bu mu fa jógee mukk te umra wul ndax aj umra waale wala umra soog a aj ni ma ko toftalee am na aj yoo xam ne da ngay jiital aj teg ca umra am umra am aj yoo xam ne dangay ngay umra ba noppi teg ca aj ku dem ci waroom xam-xam yam dëkkal danañ ko laaj bu naree dem ran yii ma wax lu leen wuutale mutamatti tamattu ak ifraat am na bu ñuy wax xiraan <coughs> bi ma mujj wax muy umra aj mooy tamattu bi ci topp mooy ifraat aj ba jeexal doora omra seen diggante am na ku ñuy wax xiraam mooy yéene aj na ñaar yooyu ku ko def ci mel na at aji umra ci mel na at mi taqale leen ñoom ñaar def tamaton wala def ifra defandoo aj ak umra ci bàkkaar ak tàggale nitu ak ñàkk mi ngi mel ne euh, uppukaay yooyu nekk ci yenn barabu liggéeykaay yi nga xam ne day jël weñ gu ñuul soyaxal ko def ko am ndox lu ca boroom bëgg a def def ko kon ni muy tàggalee wurus ak xaalis ak weñ gu ñuul noonu la aj ak umra di tàggalee nit ki ak ay bakkaar akuk ñàkk te bu dul woon ndigalu suñu borom li itam ñaar yooyu lu koy tax am jar na ko nee na it ku sart yi daje si moom mu dem aji defe ko ko nañu ko ko sante ak payam mooy ëllëg day bokk ci ñay dem aljanna waaye nee na cib sart bu mu fa def mel ni mbóosóor bu mu fa warewu ji bu mu fa yóbbu coow lu jeex di bu mbaay bu mu fa demit di lëjal nit ñi di wër di nuyoo ñu di ko yeewi waaye bu mu defit fu mu toll mi ngi sinap ndax ku fa dem fas yéene tënku ci nañ ko santaanee du tal dara du tal dara su nekkul di la ca néegam saa ba demee ca kaaba ga ma ngay tawaaf kon nee na ku aji defu ca mel ni mboosóor bu dellu si waatee bu aj ga jeexee day mel ne na ko ndeyam jure woon ci ay bàkkaar set wicc waaye rikk bu mu ñëwaati taqal ko woote xumb xumb boo xam ne ñépp dañ fay daje ña war a jaxasoo di jaxasoo ña warut a jaxasoo di jaxasoo waaye yonent bi sallallahu alayhi it nee na gëléem la wax ba ñu daa war gëléem di aji màkka nee na jéegu bu gëléem gi jéggi te ka ko war la ko tax a jóg mooy aji màkka ba ba muy àgg ba ba muy wàññi moom itam saa bu yëkkatee loxoom di soññ gëléem gi bëgg mu gën a waaxu wala mu wàcc xëcc ko ngir mu yées walla mu taxaw tiim ko yàgg euh, gësam ko bëgg mu jóg lenn lu ci nekk suñu boroom bàyyiwu ko noonu mu dem rek benn bu ci ne def ko ci bindal xasana xasana nag bu dee ay wax mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ak jàng alxuraan ak yi mel ni ñoom bu dee ay jëf nag mooy tënk lii may def xam naa fi ma ko teg yàlla ko digle ma ngi koy def benn bu fekkee ku jàmbaare la mu seet yem rëcc ya rëcc te yëgu ko yàlla di ko ko faral benn par benn wala boog mu di ko ci yëkkatil ay daraja yoo xam ne ëllëg lay xam ne ndekete yoo lam doon def lii la si am bokk yi loolu yomb naa xam ci misaalum jamono euh, téléphone yi ñu yore ku dul faral di seet ñaataa ko dese buy dem du ko yëg day dem bayàgg rek ñu ne ko mën a tuta dem waaye léeg-léeg it nit yónnee ko loo xam ne dana toog lu yàgg du yëg ne yónnee nañ ko ko te lañ ko yónnee nu mu mën a tollu du feeñ ci diisaayu téléphone bi mu yore yàlla mën na la lool nee na ñiy ajj ak ñiy umra si nag kenn ku ci nekk na jàpp ne gan ak suñu borom la te gane nag la neex boroom kër nee na ku fa jaamu yàlla tax ñëw saa bu ne yàlla rek mu ne ko mu ngi nii jege ko lool saa bu ñaanee mu may ko bu laajee mu jox ko nee nit du fa wax allahu akbar mukk te fekk am na ko dend ak moom ne ko aljanna nga jëm wala mu ne laa ilaha illallah te kenn du dend ak moom benn mu bañ koo dégg sax waaye dana am ko tolloo moom ne ko yow aljanna nga jëm ci ak gi nga ñëw ak laa ilaha illallah ak allahu akbar yi mu fi wax bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla nee na yonent bi ne yàlla nee na képp ko jaam bépp jaam boo xam ne yàlla nee na da koo may wérug yaram jox ko wërsëg mu toog juróomi at yoo xam ne yëgul lu koy metti te ajiwut walla umra jiw yàlla nee na kooku àllam amalu ko njariñ ak wéram amalu ko njariñ lu mu néew néew daal bu ajee Makka wenn yoon saabu at ñëwaatee bu ko mënee dana umra ji bu fekkee ak jotam may na ko ko ak jotam nag waaye aji Makka moom tënkuñu ko ci jotu nit ki saa bu man man ba amee rek dafa war léeg-léeg nga dégg koo xam ne danaan su ma ko naree defi dem jox ko diw muy sama ak aj déedéet yàgg diw ca yam kepp nam la waree la nam waree diw na la la waree kon bokk ku ko mën na gaaw bale ma weesu ndax at mu jot wenn yoon lay ñëw te daa am jamono ku amul wér am man-man bi bu mu néeg néegal naan na néeg ba déwén wala na yóbbu kii na yóbbu kaam yóbbu ki baax na lool waaye balaa kenn yóbbu na dem ba noppi ndax li gën a wóor ci ko jaay laax bala moo yanu mu naan ba néeg yéeg door a yanu dana ko musal ci xaq xaq mooy di jaay kenn di ko seetal ba xam saf na li war a safam de te digalu ko kon boobu balaa kenn yóbbuwaate na dem ba noppi du loo xam ne nag dañ laa la da ngay yóbbu nangami nit am nangam déedéet aj màkk kenn du ci aj dara xanaa koo xam ne boog munta dem sart yi daje na ci moom te munta dem ba faatu diw aji woon ba noppi dem ne naa ko ajali wala mbokkam ne ko demal ajali ko te kanaa koo ajali ko it fekk moom aj na ba noppi waaye du lu ñuy wute leen lu dul yàlla rek kon boog tukki bu sori la du tukki seetaani dara du tukki dañuy kumpa du tukki wanewu du tëkku tukki mooy wanewu rek mooy tiitaru rek waaye tukki jaamu yàlla la sori na sori goo xam ne kum tax a jóg na gaaw def nañ ko ko sante xamut boo xam dana ñëw ak déwétam la di ko fekk wala buy ñëwaat déwén dana fekk mu ne ci wér wala dana fekk man ma bii mu man mu man ko Seydina Omar ibnu Xattaab nag ak ñi mel ne ñoom wax nañ ci yu méttee métti yoo xam ne benn bu ci nekk jar na ko ko man mu gaaw defi ko ndax ñoom jamono ba ñuy wax lii xew ci jamono xamuñu ko woon di wax di ragal nit gannaawam di wax di leble ci say wax wala di wax di fay bor Seydina Omar nee na ak a neexoon mu mën a ràññee ñi mën a aji makk ak fu ñu mën a nekk sarte yi si ci ñoom te aji wuñ su ko xamoon daf leen teg galag galag nag ku ne xam ne di su ko laajub jullit ci dëkkub jullit kon am na leneen lu leen joxañe Seydina Ali ibn Abi Talib moom nee na <clears throat> ku mën a aji makka sart yi daje ci moom ab jullit la mu kàllaf la wér na am na lu ko yóbbu ko am na lu mu fa dunde mu ne miig na pat lànk nee na moom day xalaat na su faatoo ndax danañ ko yóbbu fi ñuy doon fi ñuy denc jullit yam det kon boog des na as waajtaay képp koo xam ne mën na ko bu fekkee dese naa leer ci moom na dem ca waroom xam-xam ñu mu dëkkal ne leen luy sàrt dem mag te réew mi sàggan nañ ci lool bari na réew yoo xam ne yii ñu nar a dem màkk déwén ren ji leen ko jàngal mboolem warab ya ñuy war dem ci màkk yëpp ak la fay def dañu leen defar lu koy misaal ay warab yu koy misaal yoo xam ne dañ naan la sooy dugg màkk boo demee ba sa kaaba ga nii ngay féete kaaba gi sa loxo sa loxob nangam day joor loxo càmmooñ la lay fare nga di ko wër mu fare la càmmooñ benn nga tàmbalee fii daal di say misaal lu mel na foofu nga xam ne boo ne sut màkka dara du la ci jaaxal ñu won la jamaraat yi bii moo tudd nangam bii moo tudd nangam yéen ñi di jógee mun naa fii bii nga jëkk jot mooy nangam bi nga di ci topp nangam ba ca topp nangam am nañu dem ba àgg xamuñ ca dara ndax ña leen di yóbbu tane wuñ leen ca réew moo ne cëpp mënoo jàng benn tableau ca lañ fa lañ cey bind wanoo yóbbu kenn dañoo war dogal ñi yóbbu waate kenn ku nekk nga di ko nattu ba mu dégg boog lu mu néew néew làkk yañ fay làkk benn mën a laajte ana barab sàngam fii fi mu doon waaye lii am moo ci am ku jëm foo xam ne xamu ko ku mu fa yóbbu it day réeraale la léeg lekk ab guide ànd ak ñi muy guide ñépp di laajte kooku tañewu leen ñu bañ koy def ci kii moo ko neex wala kii lii na demee kii na dem ñuy tànn ñu ñu ko man xam ko te sawar ca te nangu koo def naam ñëpp xamandoo ko du yomb waaye ñay teg ci seen kanam di leen wan moom waruñu umpale dara ca foofee kon boog jaamu yàlla gu mag a ngi noonu goo xam ne ñu ñu julli waree woor waree noonu asaka waree noonu noonu la toll ci jullit ñi ku bañ a julli nag xamee sab àtteem mook ku bañ a woor waaye dañ ne ci fukk ñi jàngale ñi ko jàngale ci fiq dañ naan wa man taraka alxajja fa allahu xasbu ku lànk bañ a aji nag nañ ko bàyyeeg yàlla eh, naw lu rëy te te woyof day mel ne moom seen jabe wàcc na nañ ko bàyyeeg yàlla moom mu nekkoon bàyyi ngeen maag sama xarit waaye bu defoon yàlla ab xarit fu yàlla santaan dafay jëm kon nañ ko bàyyi yàlla moom bar bu dis la ci ku xam tuuti ci kàttanu suñu borom ak coobareem yàlla noonu yàlla yombalal dem nga te ñii dem ñëpp it yàlla nañ delloo fa ñu jóge woon ci jàmm ñi nga xam ne mën mënaguñ ko ren it yàlla na leen ko yàlla mën loo déwén ñii demit ñu fexe ba bu ñu demee ba dikk feesal dell seeni nattukaay yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie Générale Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matérielu quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité. ngir bëgg jege ay clientam digital store yaatal na bu baax a baax réseau am teg ci nag ubbi na showroom bu bees tax te Colobane immeuble CMS jàkkaarloo caserne Samba Diéry Diallo digital store indi na leen ay xeetu produit produits électroménager ay téléphones haute qualité yu mucc ayib. et matériel informatique yi xew ci jamono digital store mooy représentant exclusif bi fii ci réew mi marque bii di marque Crosscall tey defar téléphone portable yu dëgër yi ngeen di dégg yu ndox mënulul dara di ci gën a neexati mooy que téléphone yooyu dañ leen di garantir ñetti at ba juróomi at digital store am na service après vente ci Colobane buy liggéey vingt 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ak équipe mobile bu xarañ bu jàmbaare buy dem nag fépp ci Sénégal service après-vente boobule day am ak ay contrat d'entretien di leen di gunge ci seeni montage seeni réparation wala entretien appareil bu mu mën di nekk Digital Store partenaire de référence téléphone bi moo di 33 842 61 38 site web www.digitalstore.sn boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo